voilà moom loolu noonu lay xalaatee. bu ñu génnee ñi nga xam ne ñoom nga jàpp ne ñoom ñoo nekk ci ci ci diggante bi quest ci qui se passe réellement entre les deux hommes président Macky Sall réaffirmé na euh, li nga xam ne moom mooy euh, candidature bi ci secrétariat exécutif bi mu def euh, il y a dix jours moom réaffirme président Macky Sall réaffirmé na ko. Euh, ci poste li nga xam ne moom mooy euh, premier premier ministre euh, qu'est-ce qui se passe réellement entre est-ce est-ce arrive à décrypter les signaux entre les les les deux hommes non li ñu xew léegi mooy ils ont rapport rapports objectifs ñoom ñaar ku ne danga soxla sa kone ne da ngaa soxla sa morom ñoom ñaar tey Macky Sall dafa soxla Amadou Ba pour pour mën a mën a mën a dem ba élection bi ndax régime bi tey bu ci Amadou Ba génnoon lépp nërmeelu Amadou Ba soxla Macky Sall parce que aussi mi ngi dem ci ay élection ba te ba léegi mooy candidat Benno Bokk Yaakaar te benn Bokk Yaakaar ah Macky Sall boo koy incarné tey ils ont des rapports objectifs maanaam comme Amadou Ba ànd naag Macky Sall li mu def lépp ba wane ko léegi dafa soxla Macky Sall Macky Sall soxla ko foofu la yëfi toll